ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma Production da ngay beus fi ñu bind sabonné bo noppé tek ci cloche bi Xidma Production la scène du mouridisme la ilaha illallah Wa'ad ashadu Anna Ada Anna Anna Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Rasulu La Ashadu Ashadu An An La La I I Laha ilal ilal Lahu Lahu Wa'as Wa'as Hadu Hadu Anna Anna Buha Buha Madat. Madat. Hazuli. Lu. Lahi. Lahi. as hadi As. As. Hadu. Hadu. An. An. La. La. I. I. Laha. Laha. Illal. Illal. Lahu. Lahu. Wa as. Wa as. Hadu. Hadu. Anna. Anda. Muha. Muha madan madan rasul rasul lu lu laahi masha allah dugg na ci diine ji di lislaam am amna gat soxna jara le tudd soxna jara. waaw léegi dugg na ci diine ji di lislaam am amna gat waaw lislaam am kulli abad ngir ñam mën di jot vidéo yu am solo yi bàyyi ko fi ci Xidma Production da ngay bës fii ñuy wax s'abonner boo noppee ñu teg ci kolos bi Xidma Production la chaîne des mourides